بكورا خالد في بكورا يا كتابا قبل كتاب جدا بكرة يا جتاب الكف والإداء خضر سيق تريد بي والقناع يا كتاب الكف والإداء والبهار أنت أنسي دا وجارا دا عمل دا أسني لا إله إلا وجمرا الدواما لا إله إلا أبي أنت أنسي dan wajah dan جئتني لإداء سناء وجرا دواما لا إله سناء جئتني وجرا دواما جئتني على الإله سناء أسني على الإله سنا دوام دوام كتابا وعلم أنت حبيبي وخليلي وكل حبل طبيب كتابا وعلم أنت حبيبي حبيبي وخليلي وكل حبل طبيب كتابا إني أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل تبي لا إله إلا الله كتابا إني أنت حبيبي حبيبي وخليلي وكنت قبل تبي مفخري أنت جامعي يا مغرى كل لبيب يا رسول الله أنت إمامي أنت فوقي مستقل هاي إمام يا رسول الله أنت إمامي أنت إمامي إمامي يا رسول الله علم أنت إمامي أنت باقي تحت وراي إمامي يا رسول الله كريم أنت إمامي ما في ذلك إمامي يا رسول الله أنت إمامي أنت باقي أنت وراي إمامي يا رسول كريم أنت إمامي أنت إمامي قد وراي من زاد ربي فيك اللحين مغينا عن جنابي كان يبقي أمامي مثل ربي لئن معينا معينا زاد ربي لا عن كل شيء بمصطفى وحمامي زاد ربي كل شيء عن كل شيء فاروق وجعل ترمدا للمخفى للخير لمنهم إمامي ترمدا للمخفى الأمم وجعله حمدا للمخفى من خير لم نعم إمامي سرمدا للمخفى للمخفى من خير سلام للمعلم جرجف جرجف شيخ بامبا يا متى عندك Mbàkke jërëjëf jërëjëf Seexu Bamba yaa mata àndal Mbàkke jërëjëf jërëjëf Seexu Bamba yaa mata àndal Mbàkke jërëjëf jërëjëf Seexu Bamba yaa mata àndal Mbàkke ku la am tu njàkk bay ñeetaane la am dootul ñàkk bay ñeetaane bala aysa bamba yaa jar di di gontu ba far dee ba defal yàlla lépp lam bamba yaa jar di xëy di ba far dee gontu ba far dee defal bala aysa yaa defal mustafa la xawsiyatan noona الهادي خير الخديم في ديوانا هدف المصطفى لقصية نور خير الخديم في ديوانا يو قرم لونغا يا قرم لونغا قديون من ولا يو يا يوانيا ca gërëm loo te ca gërëm loo nga digal man wallaay Cheikh Mouhamadul Muntaqa yaddahu llahu wa nasra sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ko te aar ba li mu yéene lëggéel Sëriñ Tuuba na ko defee ni ko bëggee euh, farata la nag ci taalibe bu ne la ngay def ci ndokk nga boole ci Sëriñ Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal fi te wéral ko yàlla sàmm ko te aar ko ndax kat kiiraay la ci yoon wi te yoon wi soxla na kiiraay lool sëriñ Muntaxa kiiraay la ñu xam ko ak ñu bañ koo xam kiiraay la ci yoon kon nañ ko bokk ñaanal bu baax ñi ngi nuyu borom kër gi nag di sëriñ Bayla Diop xalifa sëriñ Mbacke Diop Kalsaan ak rakkam sëriñ Bàcc ak njaboot gi yëpp di siyaare mboolem sët yi ak sëtaat yi ñëpp leen di siyaare bu baax di am mbégte ci ñëw giinu fi ñëw fekk si leen ci bis bii nga xam ni noog yéen ñoo ko bokk waxoon naa ko fii daaw bokk ak yéen ngeen baal ma déglu ñu bokk ko ak bokk goo xam ne bokk gu sedd suñu xol la ngir cofeel gi nga xam ni dox na ci diggante bi kër gi ci ay jamono bari woon naa fi tànk lool ci sëñ Bayla ak sëñ Bàcc waaye sëriñ Cheikh Lo mee toog di sët ci kër gi mën naa wax ni moo ma yar ci ay loxoom loolu sax am moo ma yar liggéey bi ma koy door bokk na ci jëwriñ yi ma daan taxaw ak a jàppale ci xalaatam ak yi ndimbalam jamono bi ñu nekk fii Touba Taïf yoroon fa studio sama mag bu góor ne fa nag Ousseynou bari woon naa fa ay tànk tàkkusaan gu ne fa laa daan toog ba xaaju guddi te lépp luy jëmale liggéey bi kanam daana ma ko wax lépp lu koy gàllankoor daana ko wax tegoon ci tànkam nag te loolu fàttewuma ko lii walla fii wax naan gone du fàtte waaye gone du fàtte kon nag maa ngi koy sant bu baax jëleel naa wala yi ma fi am ñu mel ni sëñ xaadim ak ñi ci des ñëpp waaye jëmmi sëñ Cheikh Lo rek bu nekkoon Italie woote ne dama bëgg nga ñëw fii defal ma fi lii ma ñëw defee ko ni mu waree ngir seq na ko man jaral na ma ko te it sama kilifa maa ngi leen di sant bu baax lu baax lii ngeen def boole ma ci maa ngi leen di sant bu baax di ñaar yàlla. barkeb maam ju tedd jooju ngeen di liggéeyal muy sëñ Mbàkke Jóob ni ko sëñ Seex Lo ñaanee képp koo xam ne tàbbi nga ci kër gi yàlla nañ sa njëgal waaye yàlla nañ sa doole ko àdduna ak alaaxira barkeb xasaay bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ Xaadim nag maa ngi ko lu rëy si ñun la ndax xam nañ ne àdduna moo la soxla loolu loolu yàllaa ko dogal kenn mënu si dara waaw yàllaa ko dogal su boromam bu dogalee kenn mënu si dara àdduna ñoo la soxla waaye li la àdduna soxla soxla pas-pas ba nga amoon dara soppiku si xam ngi ma doon tàmbali doon dal baasin ak ak bi mu demee mokk alxuraan xam ne nit ñi xamoon pas-pas yi sa wëlërëy démb ba tey ji ñoom ngay àndal ñoom ngay diisool loolu xam nañ si lu bëree bëri te am na fi ñoo xam si fi nga àgg si am xasida àggu gun fa te commencé nañu wane weneen yoon loolu nag yal na yàlla musal ndax ñi fi seetaane la